لا يحمد على مكروه سواه لا إله غيره ولا رب إلا فهو إله واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على عين الرحمة الربانية والصلاة والسلام على الياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني والصلاة والسلام على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضة الله من الله إلى الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mbokk yi fii ci Géejawaay fii ci Njolofeen fii haji Muhammad Roqi Gaaj ci ay njabootam عدالة في شيخ الإسلام وسعادة الأنام شمس الملة الإسلامية وصاحب الفيضة التجانية مولانا الشيخ الحاج إبراهيم ابن مولانا الحاج عبد الله الكولقي التجاني maa ngi di leen ziyaara la cay tegu mooy sant ak gërëm ak fàttali leen fan yi ñu nekk nii mooy di ayyaamu tijaani moo tax bi ñoom alaaji yëkkatee marhaban bi Cheikh Tijaani sama xel sori na lool ndax dëgg-dëgg bàyyi lim ne woon yaaman yuridu tijaani yi wér la yaa man yuridu tijaani ay mushafahatan li bayti barhama tul fihi mukafahatan walam aqul fanadan wala mubalagatan loolu wér na boo bëggee gis mooy tijaani boobu man nga koo firee ñaar man nga koo firee at tijaani tariqatan yaani at tijaani yul xaqiqi xam ñëpp dañuy ñaan yàlla nekk tijaan waaye mu ne boo bëggee gis tijaan pire Tijaan dëgg-dëgg boo ko bëggee gis kaay dugg ci néegu Alaaji Ibrahima Niass boo fekk ma fa boo ma fa fekkee fekk nga fa Tijaan cent pour cent loolu mën nga koo déggee maanaam béykat waaye mën ngaa déggee yi yaa man yuridu Tijaani ay ak Tijaani saahibu tariqati yow mi nga xam ne yaa ngi wër jëmmi Cheikhu Tijaan ci jamono. Cheikhu Tijaani jamono. bu dee yaa ngi koy wër kaay dugg ci néegu Alaaji Ibrahima Niass boo duggee sama biir néeg rek kam fa fekk mooy Cheikh Tidiane ñaari maanaa yëpp na koo ñaar yëpp dara benn na sax day lay doon ndax tijaanil tariqatan mooy daanaka rek tijaani saahibu tariqa ndax boo déglu booy booy booy xuus ci téere tariqa tijaan ak pas-pasu tijaani ya ak magi tijaani liñ bind maanaa bàyyi daf la koy tënkal ci ay xasaayit yu gàtt yoo xam ne daanaka lépp lu aju ci Cheikh Ahmed Tidiane ak ci tariqaam bi lépp lépp lépp da ngay gis ne bàyyi wax na daa booy dem ci muneetul murid euh, Tidiane ibnu Baaba li muy yaatu yaatu daanaka booy xool kay fa yaxlu lépp lu Tidiane Baaba wax ci jaar jaari Cheikh rek bàyyi indi na ko ci Hamziya mm-hmm. mais fa marxu Cheikh toujours rek damay naan yal na ma yàlla may ma am nguur rek ak kàttan ba man koo chara maanaam ni ma ko comprendre ak li ci devenu ni ma ko mën a génnee ci wax ko yàlla may ma moo mën koo bind mais euh, euh, barki démb yéen yéen a ko doon jàng fële euh, parcelle mais sama xol baa maa ngi kontaan mais fa ma rafetlu Cheikh rek xasida boobu nga xam ne presque sax matul ñeent fukki béy mm. waaye xasida la boo xam ne maa ngi naan xoolal baay wax na wax na tariqa bi ndax lahu wirdun min alhaadi hmm. la ca aju boo ko seetee foofa da nga mën a andi charti tariqa bi hmm. andi wird lazim hmm. indi wasifa indi xadra indi ngëneelu werd bi indi warlu yi loolu yëpp baytu boobu làmb boo xoolee alal aqtaabi rijlahu fa yaalal xatmi yaa ngi dégg mu middul kulli tijaani diggante boobu la fa lam yëpp mooy xat miyato kat miyato dégg nga alaw naa min ka atraban loolu boo koy xool da ngay gis foofu mu ngi wax mayu tariqa boo àndee Cheikh na Ahmed Tidiane bàyyi na ko alaw koyo nañ min ngir yow Cheikhu Tidiane atraban sunuy maas yow Cheikhu Tidiane yaa tax ba ñu koyo sunuy maas alaw naa min ka atraban wa abdalan wa andaban mu ne ko abdaal yi waliyu yàlla yi nga xam ne ay badal la ak yeneen xeeti sangi waliyu yi nga xam ne duñ ñoon ñooñu ñëpp yow Cheikh tax nga ba ñu féeti la te nag loolu du tumuranke de woo fa min kum ndax tukkee ci yéen jaa ala dikki ak taaban mboolem xutbu yi fu ñu du baxari irfaani fayduy géeji xam yàlla xutbu yëpp géeji xam yàlla yi ci yow lañ ko jëlee yow Cheikh kon nag bu dee yow yaa tëbb xutbu yi ba ñu am fayduy maarifatu billaahi kon ku ànd ak yow di sab bi du jomb moos mu koy xutbu yi bu fekkente ne yow yaay may wa koñ bi yëpp li ñuy dunde su wax dëgg yàlla sa waa kër bu ñu xiif kon bi bi ñuy jàng loolu mu ngi mu ngi maa ngi maa ngi gis loolu ci sama kanam kayfa yaxlu baada alfiraqi thawaaw بلدتي غاب بدرها والضياء حي مغنى لدى بليد فدردا سفواد السبو ففيه الحباء حي مغنى لكل ختم وكتم حي مغنى bihi yunaalu raja xoolal rek loolu ci nag fan yi ñu ne ñooy ñooy xaj yi magnan li kulli xatmin wa katmin xatmiya du ayaamu tijaani yu tedd yi ñu ne moom laay fàttali mu jaar ñu di ko siiwal bu baax keroog keroog dama dem seeti suñu mbokk Salim Niang mu mooy mu ma koy mu naan ma xoolal agenda laa ko defal di di di di la topp ay yaamu tijaaniya ah, ah, ah. di ndax ay yaamu tijaaniya mooy lan euh, weeru muharram bi ñu nekk ci fukki fan yi ak ñaar ci la yàlla may Cheikhu Tijaan maqaama xatmiya ci weeru safar wi ñëw ci quatorze safar ci la yàlla def mu gane àdduna ci dix-huit safar ci la yàlla de dogale mu am maqaama kat mi yetu doon al xutbul mag de kon xoolal diggante muharram ak safar Cheikh na Ahmad Tidiane bokk ko kenn moo tax ñu tuddee nag diggante euh, douze muharram ba dix-huit safar al ayyaamu at tijaani muy fani tijaan ndax ci ci biir weer wi ak wa topp ci la yàlla maye Mawlaana Cheikhu Tidiane li tax dëgg-dëgg ñu naan ko Cheikh Tidiane li tax ñu di ko topp dëgg-dëgg muy ñaari maqaamaam yooyu mu junj ne qadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyin lillahi taala min ladun aadama ila nafxi suuf sama ñaari ndëggu yi teg naa ko ci baatu képp kuy waliyu yàlla ñaari ndëggu yi mooy lan xat mi ak kat ñaari maqaamaat léegi nag junj boobu xoolal li ci nekk rek ci junj douze muharram ak 18 safar xoolal xam nga ne ilaha illallah mooy fukki arafat la xam nga ne rasulullah fukki araf la ak ñaar xoolal kon fukk ak ñaar bu baax a baax nga xaatir ci léegi nag jël fukki araf fukk ak ñaar weeru muharram cheikh radiallahu anhu dafa jiital foofu fukk ak ñaar douze muharram bi ci la amee maqaama xatmiya tombé bésu dimanche ci mil deux cent euh, quatorze ci gàddaay bi lundi dimanche altine mu mel ni ñaari weer yi muharram safar doxalewul ñaari bés ci diggante bi mais doxalewul beneen weer ci diggante bi mu ngi jot xatmiya dimanche jot xatmiya lundi 18 safar tombeeg lundi 1214 encore mu jot ci maqaama 4000 léegi nga gis weer defe naa ñun ñëpp xam nañ ne fanweeri fan fanweer boo ci génnee fukk ak ñaar lu cay des 18 mu jël 18 12 ci muharram desal ci weer wi 18 léegi weer wi am 18 dee mu safar teru mu amaat ci 18 yaa ngi dégg bàyyi fële douze xoolal ci xat mi ya dafa jiital douze bàyyi dix-huit ci kat mi ya dafa jël dix-huit desal douze léegi xoolal douze bi mu bi mu jiital ak douze bi nga xam ne moom la desal boo ko boolee muy 24 di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah di xarafu salaatul fatiha di xarafu fatiha di xarafu di kalimaatu fatiha di kalimaatu salaatul fatiha di xarafu laa ilaha illa mu kon isharaat yooyu junni yu xóot xóot la te boo delluwaatee ci 18 safar boo ko jëlee ba pare luy des du 12 gàmmu kañ la du 12 rabiul awal diggante katmiya ak juddu yonent bi ba encore vingt jours moo ci dox mu muy diggante Cheikh Tidiane ak yonent bi muy laa ilaha illa muhammadu rasul مطبعين تلك الدوائر دورها من احمد في احمد آه، لولو نيوكم سنو سنو مايلا سنو خيول لا شي وير يي نيو فوغلوكو بو با فوغلوكو بو با او با كي تاك شيخ تجاني ديكو واختاني بو با با واجالكو ما هو يونس صلى الله عليه وسلم جام تبارك الله كون يالنا يالا نانغو ا ني زياره di leen ndokkeel di leen baloo àq ci jotaay bu yàgg bi ñun am na fu ñuy xaar ci kanam waaye biñ toogee fas fàtte nañ loolu fa tabaarakallaa kon ñu ñuy sant bu baax di gërëm feddali suñ kóllëre di ñaan soxna si yàlla ko yàlla yërëm te jéggal ko te xaare ko aljanna di ziyaar nag mboolem xadra bi di ziyaara xalifa ba alaaji madame gaaj waaye di ziyaara sama soppe sama wóllëre alaaji abdou saani gaaj xam naa ne nekk fii waaye mu ngi fi fa tabaarakallah eh, tam ñu koy ziyaare bu baax a baax di bëgg bala ñuy tëj ñu def dog boobu ma waxoon muy fatiha fukki yoon ayatal kursi fukki yoon lixlaas فكيون اك بن بني بسم الله الرحمن الرحيم صلاه الفاتحه فكيون ييني كو سي يالنا يالا يوك ليرام فون نيك تي برزا في دي سيتام يالا استاذ لي سي باركيم سي باركيم شيخ تيان باركيم يالا محمد اللهم صل على سيدنا محمد